projet buy saytu lépp lu jëm ci wàllu mbënd mi judd na tey lañ ko taxawal ci koppar bu toll ci ñaari milliards franc CFA. tey ji ñu lancé waat beneen marché bi nga xam ne moo ñuy permettre ñu dem nag ci wàllu solution yi nga xam ne moom la marché bu njëkk bi wane woon cartographie bi solution yooyu mooy tey dëkk bu mel ne. Touba dëkk bu mel ne dakaar dëkk bu mel ne euh, Diourbel Tambacounda Kédougou Kolda ñu leen tuddee les sept zones pilotes ban xarañte la ñu war a taxawal pour xeex fa inondation solo sam mooy wut li nga xamante ni mooy ay jumtuwaay ci bërëb yi ñu sible mais ñoom am nañu xarañte fépp fi nga xam ne xam nañ inondation bi lu ko waral daañ ñu wax ne ñu ah bu dee dëkk bii de solution bii moo fa gën lii lay jar nii lañ koy defee te bu ngeen paree lii. dëkk bu mel ne moom mën ngeen ko yóbbu def la même solution maanaam c'est des catalogues qui vont servir également yeneen dëkk yi xam ne ñoom ak foofu ñoom ñoom parce que loolu lañ ci jublu maanaam type d'inondation bu nekk ñu xam ban solution moom moo koy moom moo koy réglé. bërëb yooyu ñoo ngi toll ci juróom-ñaari projet pilote ñu fas yéene dawal li nga xamante ni mooy projet bi ci diiru ñaari fukk weex ngir rek mun a ñoŋal li nga xamante ni mooy nekkinu askan wi ci lépp lu ñeel mbënd mi.